Leewtoo TV rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee 100 pour 100 làmb tey nag fi ñu ñëw mooy Thiaroye sur Mer terrain Oryx du noon la demee xoolal nit ñi taala yaa xool lii lii nag bu ngeen ko gisee samedi arène nationale rëg-rëg giri de rëg-rëg nag tey mooy def open press gis nga mbooloo mi gis nga kër yéeg fu nekk la nit ñi taxaw taala taala yaa xool fu ne nit yéeg na fa foo xalaat rek nit yéeg na fa tey ci caaro du gis nga loolom mais maa ngi nuyu nag supporteru Reug Reug doomu ndeyam ñu koy wax ki nga xam ne nii moom mooy waajo ja Colobane gis nga li ma Sénégal Sadio Cheikh ñu koy jàllale doolal ñëpp. si nekk sa tur ak nekk fii ñoo tax may sonn. waaw waaw waaw leen bëggee bu baax a baax. Eh, gis naa luñ ci taxawee. maa ngi nuyu ñëpp surtout ma a Oryx yi. Eh, maa ngi leen di bëggee bu wér a wér. Eh, Aliou Sarr ak waa Lam Sarr tey maa ngi leen bëggee bu baax. te dañu gis Thiaroye nekk benn. Mhm. amatul. Thiaroye mhm. gëm sa bopp amatul. 100 mhm. pour waaw loolu moo am lépp instant bi caara lépp benn la caara yi léegi lépp benn écurie moo fi ne ñun caara yi fu ñu nekk drapeau nañu suqal mu jëm si kanam si kattanu suñu borom. yàgg nga bëre ak luur. <laughs> mais ki ngay bëre la boo xam ne dafay bëre dafay xeex. Mhm. te daan na ñetti champion d'Afrique. waaw man luur luur jaaxaluma mën a bëre ak luur dama koy wax waa presse man kenn ku ne ak yàlla suñu borom lu mu lay may man damaa mën a bëre ak poids luur loolu yàllaa koy def ñu. yàlla mooy def loolu waaw ñun mënuñoo xeex ba bis ba dinañ xam ñun lu ñu mëne ku ma mësoo oo si xeex bu ñu duggee si géew ba da ngay wori te si kattanu suñu bu taxawee ma duma ko daan ko si kattanu suñu borom ma delloo day gaaw gaaw ci xeex wala bi amul luy yàgg nit boo ko manee doo yàgg ak moom. jaajëf jaajëf waaw nit boo ko mënee doo yàgg ak moom te si kàttanu suñu borom danañ ko wan luñ ko luñ ko mënee. si lépp li si lépp lu mu indi rek ñu tax si rib lu mu indi fekk ka fi. lu mu indi fekk ka fi loolu moom la rek. yee moom loolu moom la man li ma war ak sama promoteur bi dama koy def ba mat sëkk yee loolu la. combat am na ñoo xam ne dañ ne ku mhm. moo koy yóbbu ci VIP. waaw gars seen seen xalaat rek nañ wax. yee te combat bi doonul combat bu ndaw. yee te ñun xam nañ loolu. yee. samay fan xam na li ñu yor. yee. dama dégg sama naan c'est pas le job mu ne combat bi comme la ngeen defoon Elton moom ngeen koy defaat kii maanaam consto bëre loo ko ba mu sonn mooy lu ma la rek lu mu laaj rek lu mu laaj rek dañ koy def si kàttalu suñu borom waaw bu soobee suñu borom. Mhm. waaw loolu lan la lay yokk. waaw rek. te ñu maanaam mbooloo mooy doole. ku su mel ni Baye Mandione gis na xam ni. mbooloo mooy doole waa caare gépp dañ ma ngemb. di xaar bis ba samedi yàggatul. trois jours moo si des. moins de trois jours di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. loolu moo si des li si des yëpp ay waaw. nañ yéen ñaar kenn mosu cee daan. Mhm. ngeen di bëre dimanche. waaw samedi dimanche. waaw moom non man du pression ni man na toog xaar ma rek ma dem. waaw ah. na toog xaar ma ma dem. na toog xaar ma waaw. waa bi gis nga. tu ah, nit ah, nu mu tuddati nuñ koy waxee sax. waaw tungu nataal gis nga mbooloo mi fi ne. waaw ñii moo ñii moo tax may rey sama bopp. mu ñëwoon champion. waay man yow non non maa gën a tuuti si caara yi maay mbër mu ndaw gën a ndaw si caara yi fooy tuddee Baye di ma tudd ah tuddee Xaadim Njaay di ma tudd ak ñeneen ak ñeneen yee maa gën a doon xale man maay caatu uh, caatu caara yi maa gën a doon xale si caara yi yee waaye gis nga mu ngi nii ma gis nga mu ngi nii waaw ne waa ji da ngeen mm-hmm. dañoo xam si luñ yor. yow da ngay ko man marchandise buñ yor. dañoo xam valeur moo tax ñu wax la loolu te si kattanu suñu borom noonu lay demee. noonu lay demee li ma wax dama koy def si kattanu suñu borom dama koy duma dama koy daan si kattanu suñu borom. lu may métti si moom lu muy ni ah ma fekk kasi te bu taxawee du mat 5 minutes bu taxawee du mat 5 minutes si kattanu suñu borom. Fass xam nañ xam nañ waa Kaneen chaque jour dama kay wax xam nañ waa Kaneen ah waaw Mbaye Gueye sunu papa Mbaye Gueye sama papa sama papa lu mu ko da kaa mu daanu waaw n'est-ce waaw ak benn jëlle boo xam ne ne moom na ko xaar ba tey gisaguñ ko waaw verdict ba nañu xaar ba tey ji waaw bii lay doon incha bu soobee suñu borom lu mu laaj lu mu indi rek tax sirib ah dafa ay champion d'Afrique ban ak la daan non non Fakala waaw ak ah kan ogis ñooñu du ñu man ñoom tamit du ñu du ñu du ñu ñoom te man du ma ñoom dégg nga ma man damay du damay xeex damay bëre man kenn du ma dóor may yooru non non damay xeex damay bëre xanaa déggoo ma wax naa ko kii yàlla mooy def loolu si nit kenn ku ne mbër mu ne daa am loo mane man yàlla damaa may ma mën a bëre poids lourd dama xa ay si dama mën a bëre ak moom bu ma doon mille mille sax damay mën a bëre ak moom ndax dama xaa mane jaajëf di nuyu ñoom nag bu ma limee damay juum di wax suñu papa suñu papa Malick na ñëw jàpp si combat bi ñun ay doomam nañ nañ ñëw jàpp si su euh, maa ngi nuyu ñëpp bu ma limee damay juum yee du ñage ñaa na ñëw jàpp si combat bi di nuyu ñoom Ali ñoom bu ma limee daal damay juum ñoom boogu maa ngi woo si combat bi ñu ñëw jàpp si waaw. waaw kaar yi waaw kaar yëpp kaar xam na fi ñuy démarré si jàkka ja lay démarré si day am kaar fépp day ay kaar waaw bu weesoo bu liwee bu jëree sax dox dem si kàttanu suñu borom waaw. di leen sant nag di leen gërëm aw ma seen fay waa presse bi tamit sama ah, sama maa ngi surtout ma waa Thialane waa Thialane Dionewar Niodior Falia Sio Bassar Bassoul maa ngi leen di woo si combat bi waaw yow grand Dakar maa ngi leen di woo si combat bi ak waa Mbelengi Gandiaye autorité yi Thiaré yëpp maa ngi leen di woo si combat bi ñu jàpp si xam ne seen doom moo xewle waaw ak AC Goulal Thiaré maa ngi leen di woo si combat bi ñu ñëw jàpp si waa di bu ma limee nag ak fukki penc ak ñaar yëpp ak banlieue bi surtout banlieue bi maa leen woo si combat bi nañ ñëw jàpp si di leen nuyu waa presse bi aw ma seen fay di nuyu sama waa staff aw ma seen fay capitaine Thiaré yëpp maa leen di bëgg ñëw jàpp si combat bi di di nuyu ñëpp bu ma limee da juuma waaw sant naa leen gërëm naa leen ok wasalaam jaajëf